الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان وسماء رفعها ولك الميزان ألا تدعوا بالذي القسط ولا تفسدوا ذات والأرض ما نام فيها حكرة والأرض ذات الأجناب والخب ذو الرأس وريقان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلسائك الفقار وخلق الإنسان من نار جلها فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المسيحين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ومرأة من يهمان يغلو إلى المأتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستهينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا وعبيبنا وابنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم يبعث الأجسام والأرواح بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bu ñu leen nuyoo ci nuyoo bi gën a tedd di nuyoo bi lislaam ñu ngi leen di siyaare di leen balwaq di leen balwaq di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bool nu jéggal xanaa ji jiiteel ci kàddu yi rek sant suñu borom subhaanahu wa ndax teraanga bu rëy bii nga xamante ni nii moom lañu ñu tey ñu ko ci sant bu baax a baax a baax wax ni itam jataay bi jataayu alquran la te jataay mënta gën a màgg jataayu alquran tagg itam gën a mën a màgg tagg yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon jataayu alquran moo nu fi tax a daje di màggal alquran moo nu fi tax a daje kon nag ñu ngi leen di siyaare di leen tatagal ci doole alquran xanaa di sant bu baax itam e, waa dëkk bi ndax mbir mu mu doon da koy tàmbalee ca ña nga xamante ne ñoo ko tàmbali ndax mbir mi <clears throat> yàlla lum mu doon rek dafa am fu mu ko jaarale yàlla dafa dogal waa dëkk bi ñu dajaloo xalaat ni nañu wut daara ah bi ñu waxee loolu ñu seet na na ko na ku nekk joxe deux mille francs jigéen ne ku nekk joxe mille francs <coughs> ñu loolee ñu dajale ko lañ ca jëkk am ton ciment lañ ci jëkk am móol ko yàlla dogal am yeneen jaami yàlla yoo xam léeg-léeg ñu ñëw yëkkati for dara joxe ko ci ba yàlla dogal benn bis ñu ñëw fii di móol sàmb mii yàlla dogal mu ànd ak mbay faal jaar fekk fi jëm ca toolam mbay faal ni ko ñii de daara la ñuy prévoir fii ba mu demee ba muy dem cent mille francs la jëkk jox Mbay Fall mu ni ko maa ko barkeelu ci daara ji Mbay Fall ñëw teg ko ci suñu loxo ah ñuy ko ne ndànk ndànk ndànk waaye ci kattanu suñu borom xam ne lu jot rek am na fu mu koy jaarale ci xeerte moom itam ak bëgg lu baaxam ak bëgg alxuraan moom sàmb mu ñëw fii ni nañ ko en nañ ko fotol daara ji envoyé ko ko ñu fotol ko daara ji envoyé ko ko ca la engagement nag ba nii daara ji egge fu mu ci toll fu ñu toll fu ñu toll fu ñu toll rek mu def ci ba nii ba mel nii mu mel tey kon ñu ngi koy sant bu baax donte nag itam nag boppam la doon defal ndax waa na ko kër bi ñu ubbi daara ji nee naa ko yow nun ñu lay sant waaye santal yàlla yow itam ndax lu tool nii bu la la baaxee nga yàgg say bokk ak ñi nga àndal ngeen def ko ci lislaam def ko ci alxuraan na sant yàlla mi la jàppale loolu ndax ni yor na alalam bëgg a def te amul fu mu ko def wala mu def ko foo xamante ne nii du ci am yàlla kon xiir la ci nga tax sa alal jëpp nga def ko ci néegu yàlla wala nga def ci fu ñu jàngee alquran war nga sant yàlla bu baax ci loolee mu la defal te xam ni boo ëllëgee incha allahu soo teewee ci kanam borom bi subhanahu wa taala la yonte bi ne amul kenn kuy jéggi saati laaj ñu la nga amoon foo ko def ak noo def am ko yow buñ la laajee li nga amoon foo ko def dooree ci doo ni mukk doo rëcc doo rus ni ci daara ji laa ko defoon kon duud yàlla na yàlla fay la yaa ngi ñëpp di def ah su ko defee ñu sant dem bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo doon liggéey liggéey bii muy maçon yi ndax liggéey bu mel nii xam nga ni ku ko liggéey ba mu mel nii bu fekkoon ne da nga ci doon laaj alal yaakaar naa ni la nga laaj duñ la ko mën a jox waaye saa yu ñu engagé lu ñu engagé ci liggéey rek ñoom ñoo ñi ci ñoo ci gën a takku ñooy soññi sax tafaa ni ko bi sàngam dañu dem ca daara ja ak seen dooleeg seen xam-xam ak seen lépp ba mbir mi àgg fii tey kon tam ñoom itam ñu ngi leen di sant te di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla barkeel leen يعني يالا فايلة تبارك القرآن أه كوكو جفل إن شاء الله مو فايلة أه مبير منك أه وقت يالا مبكت رجلا خنا دودو ليني جيغل رك موي موبيليساسيو بيغا خامتيني موم لنج بوغونا نعم. ام دا فا ام لوكو غالان كور دا خيو خيو دا فا ام تي نينتي ني باري نيك فوفا waye su fekkonté du lol so ñëw di fekk bolo bo xam dañ fa xaj ndax waxuma la nga fi def waye yow sa jëm rek jar na ñëpp mobilisé ñëw téru fekk kon ñu ngi lay seedeel ni la néew mbooloo mi ñu ngi la ko jéggalu baax waaye xam ni xol yi moo am solo te xol yëpp jublu nañu foofu kon ñu ngi lay sant bu baax di sant bu baax moom itam mbay Fall bi nga xamante ne nii yàlla dogal na mbir mi ci moom la jaare ndax yàlla lu mu ne ma def fu mu ko sabab bala yàlla booleeg mbay xalaatuñu woon ni lii dinañ ci fekk waaye yàlla dogal ànd bi ànd bi di rafet ànd bi rafet ba teraanga bu rëy bi nga defal lu ko jaare ko ci mbay faal koy Mbaye Fall ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaan yàlla yàlla yàlla gën ko yàggal ci bopp dëkk bi yàlla dolli ko moom dolli ko jàppale ba lépp lu mun ni sër mu jëm ci dëkk bi yàlla ko ci yàlla jàppale yàlla yàlla soqali dëkk bi ci kayam ndax itam bari na loo xam ñëw na ci dëkk bi yàlla dogal na ci kayam la jaar yàlla gën a yokk yàlla gën a yokk lépp na ndimbalul yàlla la ah di sant comme ni ma ko santi waa dëkk bépp waaye di sant itam al moom mi nga xamante ni moom itam moo saytu woon liggéey bi ndax man la yàlla dogal ni man la ñu sarse mbirum liggéeyu daara ji ba daara ji di mbaar ba léegi problème daal sama loxo lañ ko tegoon waaye nag lépp lu ma ci waroon taxaw Tafa moo ko taxaw mooy sooñu nit ñi mooy taxawu liggéey bi lu nekk moo koy def ba tey mbir mi egsi koy itam man maa ngi sant bu baax ci sama ñu bopp ndax lii mu fi taxawee lépp man maa ko war a taxawee lii mu fi doxal lépp man maa ko war a ndax sama responsabilité man lañ ko jox kon nag Tafa ñu ngi lay sant bu baax di sant waa dëkk bi ñëpp di ko commencé ci ñi nga xamante ni ñooy kilifa ci dëkk bi tey tàmbalee ko ci Mor Diaw euh, Cheikh kan Moustapha Ndiaye mii ak notable yi fi nekk yëpp ñaan yàlla gën leen yàgg ci kanam njaboot gi ndax wax dëgg yàlla lii sagla lii sag boo xamante ni bu rëy di lii bu itam ci l'islam bi ndax l'islam amul xew-xew bu gën a rëy daal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na daara moo war jiitu jàkka toujours wax ko su fekkente ni jàkka da nga faa jaaroo ci daara ba da yàq jàkka ji rek da ngay jaar ci daara ba daara defar la ba nga jàkk soo demee mën a defar jàkka ja kon yonte bi nee noon daara mooy jiitu jàkka kon su ñu sampalee daara ju mel nii ah, bëgg nañu defar ci xale boo liggéey bu demee ci jàkka ja defar jàkka ja kon yal na yàlla jàppale ci bu baax mm. ah mu mel ni wax dëgg yàlla ah maa ngi guddal sax waaye nag ah, suñu xool moo sedd rek ah, ndax mbir mi dafa ci ñun ndax ñun amuñu lu dul alxuraan amuñu lu dul wax alxuraan gëmuñu lu dul alxuraan gëmuñu ñu yàlla xam na loolu yàlla mi nga xam ni moom xam na ci man ba xam lu ma xamul ci man wallaay seet na man lu alxuraan nawu ma ko ñooñu alxuraan itam rek laa ndaw kon nag euh, duudu ñu ngi lay doole sant bu baax la ci des ci sant ngeen dañ koy bàyyeek ñaan dañ koy def remplacer ñaan li ñuy yéene ci yow si lottu ci yàlla mi ko am man ko def yàlla yàlla defal la ko ba defal la sax lu kawe suñu njor kan Moustapha ñu ngi tënk foofu suñuy kàddu wa asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu o jafe la si ñun ndax ay mag toog wax ñu bari rafetloowuñ ko waaye nag dañ ñi kuñ jox xepp dañ laa gorloo waaye kuñ jox kàddu dañ laa waxloo moo tax ñu siy jéem a nab nabi ma xam lu ñu si juum rek ñu xam ni kàddu yi ku munta wax la fi ñu bëggoon tàmbalee nag mooy sant ñi nga xam ne nii lii dëgg la waa Kër Mori ñoo ko tàmbali woon waaye bu àggee tey seen loxo la jaar muy sàmm waa Kër Mori ñu ne ñu ngi lay sant yaag sa soxna ak sa mag ak ñëpp ñoo xam ne andon àndoon nga ak ñoom si liggéey bi ndax liggéey bu toll nii yombul lii ku ko xool xam li si dem si xaalis bari na ndax kuy defar benn néeg dong da nga dem a dem ba mujj décoration wu da nga dem ba ni maçon yi dañuy yàq man li may li may li alors que demeewul noonu moo tax Kër Mori ñu ne ñu lay sant mam daal seenu sant dal amna na tàmbali waaye amul yemukaay di la xamal ni nag am na luñ doon wax ak yow maam lu jëm si wàllum case de santé bi. xam nañ ni yéen a ngi ci ndax dañ ku la jox ndékki bu la waxee ndegal euh, reer sa xel war a dal kon ñun xam nañ ni yéen a ngi ci waaye nag kàdd soññee la ngir ngeen gën see taxaw waaw ba pare xam naa ni tamit wax leen si lu jëm si yoon wi moom daanaka jaru ndax fii ngeen jaar Kër Mori mooy dëkk boo xam ne nii dugg fii même tànk sax problème la waxuma laa nag nga yor oto wala dara yoon nag mag ñi yàgg nañ koo sàkku fu ne dem nañ fa suñ borom def na antoogul comme nag école bii daara ji bokk si seen loxo ci la antoo ñu ngi leen di ñaan comme suñ borom def na am ngeen ay xame yu sori ngeen jàppale ñu si ba dëkk bi am yoon ba pare case de santé bi daal di baaxaat waaw. léegi nag li tax ñuy wax loolu mooy dañuy teen lu mu bari bari ndox soo amul baag bu ko jotee yaakaaruma nga jariñu si du nag waa Kër Mor yi dañoo yaafuus ñu ngi jéem seen kem kattan. waaye nag am na foo xam ne loxo yëpp jote fa yaakaar nañ ni seen loxo jote na fa moo tax ñu koy sàkku si yéen sant waa Kër mu Mor nag fi muy tàmbalee mooy si chef de village mi nga xam ne nii bu ñu xamee tey sàmm ginnaaw yàlla moom la kon ñu ngi lay sant jaarale ko si chef de village waaye tànk ak imam mi nga xam ni moom ngeen ñëw ànd ak moom liggéey bi mu dalal leen ba amu ngeen si lu ngeen ragal ba seen xaalis musu ngeen koo joxe di xalaat ba xam ñu ngi ko siy def wala defuñ ko si ndax saa yu ngeen ñëwee gis ni mu ngi siy dem loolu nag moo doonoon suñuy kàddu ñun loolu daal moom la foofu lañ bëgg a yamale kàddu yi di ñaan lu si jub daal suñ borom la lu si dëng nag matadik doomu aadama ñu ngi jégg alhamdulillahi rabbil alamin tabarakallahu di rafetlu kàddu yi nga xam ne nii ñoo fi jot a teew allah Euh, di ñaan suñu borom yàlla nañ yàlla may dégg may ñu topp ah, xanaa di dellu rek di dalalaat suñuy gan macha allah di am kontante bu baax ci seen teewaay macha allah ndax it wax dëgg yàlla lii dara da koo gëntëree ci kaw suuf daaray alquranul karim euh, ñu taxawal ko nii mu mel nii ak ñun ni ñu xamee daara jeeg niñ ñu ci yàggee li may wax waa dëkk bi ñoo ma ko gën a xam Ousseynou mu ngi koy junj sànq. xanaa jot nañ fee mbaar ay mbaar yu yàgg yàgg yàgg waaye lii ñu yàlla defal nii macha allah di chance di xéewal boo xam ne nii bu nu sañoo nit dëkk yépp am ko macha kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen dalalaat jàmm di gën a kontaan ci yéen di leen xamal ni ñëw ngeen seen dëkk tabaarakallah di leen yaatali tamit macha allah euh, ci turu mboolem waa dëkk bi yépp tabaarakallah ba ci suñu bokk yi nga xam ne ñoo jugee aaneen di sëñ Pape ak sëñ moor Gueye di xarit ci mbay Fall mi macha allah chef de village. oustaz Ndiaye ñëw na bu Ngombeel. ah oustaz Ndiaye Ngombeel alaaji Ndiaye moom itamit ñoo bokk métier mi mu dëkk fii ci Ngombeel suñu wet macha allah démb rek la daje benn xew ma koy fàttali macha allah moom it mu ñëw teew sànq mi ñu ngi jokkoo téléphone moom tamit ñu ngi koy dalal bu baax a baax a baax waaw di wax ni e, lii Ousseynou wax rek ci lañuy ñuy jokkaat tuuti yonent bi sallallahu alayhi moo wax ni al madaris qabla al masajid daara moo war a jiitu jàkka te bu fekkente ni ndaw li juddu nga juddu na ci juddin wu rafet nga tànnal ko yaay ju baax wutal ko tur wu rafet masha allah a dugal ko mu jàng alquranul karim su boobaa waajur wi day daal di bëgg a wàccoog xale boobu waaye bu fekkente ni defoo loolu ëllëg da ngay am responsabilité sa digganteeg suñu borom tabaraka taala te it fii ci kër Mori wax dëgg yàlla mbooleem xale yi ngeen gis fii ak ñu ñëwagul ñëpp ci daara ji la ñuy jàngi bu yàlla dogaloon tàkkusaan jot ba ngeen ñëw fi tombeeg ñu julli bay génn ah masha allah sa yaram day daw te it waajur yi ñoo bëggal seen bopp alxuraan ci wallahi yàlla xam na ko xale yi ñoom it ñoom it gën kaa bëgg xale yi benn xale tey nangootu la taxawaalu ci dëkk bi te jàngul alxuraan même ñiy jàng français ñépp tamit bu ñu gontuwul français ba wala bis yi nga xam ne duñu ko jàng samedi ak dimanche dañuy ñëw fii la ñuy jàngee da ngay gis xale bu ñëw sax wallaahi nga laaj ko ni ko yow loola indi nga ne ko man maa wax mu ne ma man maa wax sama papa ni ko damaa bëgg a jàng alquran wallaahi yàlla xam na ko ba tàyyi xale yii bu ñu waxoon tey lii may wax nii dañ koy firndeel loolu nag dafa doon sens ndax waajur dina bëgg a jàngaloo doomam alquran doom ja di lànk wala muy daw wala muy kii waaye ñoom xale yi ñoo bëggal seen bopp daara ji kon yàlla na yàlla jàppale leen ba li nga xam ni moom la seeni waajur yaakaar ci ñun yaakaar ko ci alquran yàlla yàlla defal leen ci barke alquranul karim mu mel ni nag ah, nañ bàyyi xel ni lépp lu ci waaye def ci daara ji nga fere ko ci mbooleem xaraf buñ ci jàng ci alquran sa wàll danga nga ciy jot comme ni mu toll ñi ciy jàng ñoom it dañ ciy jot comme nit ñi toon kazalika kiy jàngit ak waajur yi kenn ku ci nekk di nga jot sa wàll te kenn du ci wàññi sa yoolu morom dara loolu moom alxuraan rek la ko yàlla def waaleykum salaam bismillah bismillah bismillah Diop Diouf bismillah nañu gëm ni kon li donul lo xam ne luy neen lay doon lii doonul loo luy neen lay doon dunduk fàww yool bii tamit suñu borom rek moo xam nu mu toll ndax yàlla moo wax ni benn xaraf boo jàng ci alxuraan dinañ la fay fukki yiw ci niñ ko mën a déggee boo boog yonent bi sallallahu moo wax ni benn xaraf boo jàng dina la ci fay fukki yiw mu mel ni misa mu misaal ni boo ni woon alif laam miim muy ñetti xaraf du caagi nag ñett alif laam miim boobu lañ lay fay fukk déedéet waaye alif bi dañ lay fay fukki yiw laam bi ñu fay la ci fukki yiw miim bi ñu fay fukki yiw te it am na beneen aaya boo xam ne ca la ko gën a leeralaate muy wallahu yudaa'ifu liman yaxtisa yàlla mooy fulandi lu ko neex ci fa muy waxali masalul lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ka masali xabbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu xabba wallahu yudaa'ifu liman yasa muy misaalum gaa ñi nga xam ni dañuy jël seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla te lii dara gënu koo foor ci yoonu yàlla ñi nga xam dañuy jël seen alal di ko dépense ci yoonu yàlla mi ngi mel ni baykat bi nga xam ne daa jël pepp dugubam ji ko dugub boobu sax pepp dugub boobu bi mu mu doon juróom-ñaari gub ñaari gub gub yu gub bu am temeri pepp ci misaal ndax benn gubu dugub bu nangu ñun ñiy bay xam nañ ko tay ji boko boko boko jiron bamu mu ag wala nga nga nga bojj ko boko don wañi xawna ma junni pep wala mop wow waaw legi pep bobu mo jur juroom ñaari gub gub bobu juroom ñaari gi tax gi tax yoyu gub juroom ñaari eh, gub gub yoyu génne téméri pep ci niñ ko mëna déggé waye nak mu tekken yalla mom moy fulandil aw yiwam comme num ko nexé té moy wallahu yudha'ifu liman yasha yàlla mooy fulandi comme nu mu ko neexee kon képp koo xam ne dugal na ci benn dërëmam walla nga ñaq ci wala nga romb ñuy liggéey sax nga ne gaañi ah waaw leen góor na nga jàpp ni ëllëg di nga bokk ñi suñu borom tabaraka wa taala di fay loolu moom na la na nga lu wér yàlla dina la fay ndax yàlla ku mu nërta fay du la liggéeyloo kon yéen ñi nga xam ne yéen ñu jàppale ba pare ba lii yegg ñu ci jàng alxuraan foo leen toll nangeen jàpp ni seen seen seen seen compte mi ngi yokk ci wàllu yàlla ala kulli xaal araf buñ ci jàng rek seen wàll da ngeen koy jot moo ngi mel ni ki nekkoon fi di la envoyé ci sa ci sa ci sa compte rek xaalis noonu nga ci jote noonu ngay jotee ay yiw ci alxuraan ji nga xam ne moom la ñuy jàng fi fa tabarakallah mu mel ni waajur yi it wax dëgg yàlla jàpp nañ ci ndax euh, su ma fi nekkee ci daara ji jàngal xale yi ñoom la ñoom ñoo am kóolute ci man bàyyi ma xale yi muñ seen lépp ngir ñu jàng alxuraanu karim loolu nag ku mu doyul dara dootu la wax dëgg yàlla kon yàlla nañ yàlla jàppale ba lépp lu ñuy yéene ci daara ji ñu jëlee ci lu kawe suñu njort ci barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jëlee ci lu kawe suñu njort ci barke yonent Yàlla Muhammad ah bi ci des mooy daara yi ñun daanaka baye ba ma ne ñun jàngale rek la lañ ci am Ousseynou Seck mii doon wax nii léegi programme daara ji lépp moo ko yor dafa baax di ma sant rek moom man maa ko war a sant ndax daara ji lépp ci loxoom la nekk lépp lu koy doxal ci loxoom ne rek weccet bi ñu ciy dugal moom moo koy fayee ko ak laaj xaalis ni mettee day waaxu ba sama kër jox ma ko guddi kenn du yëg ndax am na koo xam ne bu ko yëgoon ne naa oustaz kat daa mel ni am fornas tuut xaaral ma ñëw ndax ma abal ma 5000 wala ma abal ma 1000 francs te wallahi bu buy ñëw sax day làqatu dama koy wax ni deema woo mais moom mu ñëwal boppam indil ma ko ànd ceeg kontaante doomam ji jàng ak gisetam sax dale leen di fayal nanguwul sax bàyyi leen pour ma yóbbaale kon loolu wax dëgg yàlla bu la ko nit dee def ci bu dëkk te di ko defal waa dëkk ba yépp te man ma raw ci lu mel nii bu teewee duudu fortement jotal leen ko xamal leen ni moom ku sonn ci daa daara ji la macha allah waaye yàlla yàlla fay ko ci barke intaan moom sallallahu alayhi wa mu mel ni ñu ngi gërëm mbooleem koo xam ni teew na fi ak ku amoon yéenee teew te teewul fa tabarakallah mu mel ni daal ah alquran njariñam buñ ci doon wax tey ba suba du mën a jeex ndax lii baara ju wax léegi utlubul ilma walaw bi léegi kenn ku nekk yaa ngi ak siin sa poos siin yi mooy lan téléphone yi sa bi sallallahu alayhi wasallam waxam dafa naqaree dégg dangay ngay defee da ngay dem fii ba siin di jàngi déedéet léegi siin yëpp dafa jige léegi mais léegi kon ku ni ku ku xamul yaa xamul rek waaye ku la mën a jàngal ci sa wet mi ngi ci léegi boo koo mën a dem dafa jàngi sa téléphone boo ko ubbee léegi gis application xam boo xam da lay jàngal loo bëgg lépp loo bëgg dala la koy jàngal kon fa tabaarakallaahu ah, waxi yonent bi sallallahu alayhi kanam lay jëm mais du jëm ginnaaw kanam lay jëm mais du jëm ginnaaw fa tabarakallah kon mu mel ni ñu ngi tënk foofu suñuy kàddu rek ah di kontaan bu baax a baax a baax waaye chef de village euh, li mu wax wax na dëgg moom dafa kontaan bu mën di wax te moom yàlla man loowu ko wax waaye moom wax dëgg yàlla ah, li mu bëgg a wax lépp ak li mu yéenee wax ci diggam ak duudu ak diggam ak euh, dëkk bi moom mënu ko wax chef de village ku woyof la ku baax la ku bëgg ñëpp la boot ñëpp nangul ñëppit nag nangoo sonn ci coono yi ci waa dëkk bi yëpp lu gone tuut tuut tuut loo ko sant lu mu néew néew jaral na ko taalooto bee dem doxali ko ñëw te du la laaj benn dërëm xanaa yow kay yaay xool sa àq jox ko ko loolu nag boo la ko ab chef de village day defal te boo ko neexoon ne man maay kilifa dëkk bi xaw a yëgati mbaggam waaye dafa wàccey mbaggam ba maanaam ñun ñi gën a tuuti sax ñoo ko gën a yab loolu nag ak la ñu leen ko seedeel muy ko baax waaye nag ku bëgg dëkk bi ku bëgg dëkk bi jëm kanamit nag ndax lu ma am nag wax dëgg yàlla dëkk bi la fa tabaarakallaahu kon ñu ngi e, sant bu baax e, di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala yàlla na yàlla mottalil ñu ba lépp li ñu yéene ci alquran ji yàlla na ko yàlla def ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa aleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñi fi teew ñépp wax dëgg yàlla di bég ci jataay bi comme ni ma ko waxee nag xam nga mbiri aada defe naa sous préfet yi waruñu ñëw si kër móor yi ndax euh, ñoom comme ni suñu maam yi doon kiyee rek xam naa waaw moo tax démb laa jaar ci moom di ko ko fàttali sax pour mu ne ma kon daal xam naa nga teewal ma rek ndax man duma fa mën a dem waaw moo tax mi ngi bég lool ci événement bi waaw particulièrement nag man Euh, ni ko chef de village waxee mm, bu sous-préfet yeblewul woon it man ma ñëw ak sama wàll mhm. ndax Kër moor yi dafay sama dëkk mhm. dafay sama dëkk ma seq ak ñoom kóllëre gu yàgg ci mu jaar ci sama càmmiñ joo xam ni bàyyee na fi muy Mor Jaw ak waa këram macha allah mu mës a nekk sama dëkk nag wax dëgg yàlla euh, bi mu fi nekkee nag ñi nga xam ne ñoo fi ne ñoom ñëpp dafa jàpp seen loxo teg ci sama loxo ni ma ñii waa Kër Mor yi dañu fonk dëkk bi lool ku ci mel ni chef de village ku ci mel ni Pape Kanme ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ba fi moor jógee ba tey tam ñuy doxal ma ni ma daara ji pare na te daara ji ba ñu koy tàmbaleeg yépp wax dëgg yàlla euh, ma fekkee yépp ca cos gaag yépp wax dëgg yàlla ñu gërëm nag wax bu baax partenaires yi nga xam ne ñooñu ba daara ji pare ndax daara dafay loo xam ni euh, ku ci nekk ci nga war a njëkkee waaw ndax jangal xale yi xam-xam surtout jàngal leen seen dafay lu am solo waaw moo tax lépp lu ñu mën ci suñu wàll wa ñu ne dinañ si jàpp incha allah ba nga xam ne dinañ ci dugal suñu loxo bu sobee yàlla maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di kontaan ci jataay bi oustaz euh, bi ma fekk muy waxtaan léegi imam matale na wax dëgg yàlla waxam matale na amuñu luñ ciy teg xanaa di gërëmaat di sant rek partenaires yi bu baax ak ñi nga xam ne ñoo jàpp ci daara ji yépp waaw di ñaan suñu borom xale yi nga xam ne ñoom la fii yalla def ñu fiy jàng yal na leen yàlla sàmm aar ba ñu nekk ay magi diine ay magi lislaam kontaan na trop nag ci événement bi wax dëgg yàlla mënuma ci sax sore ci wax ji ndax euh, sama xol fees na trop macha allah ñu ngi gërëm yaayi daara yi moom bu la bu ñu waxul ne jàmbaar lañ ñëpp xam nañ jàmbaar lañ yaayi daara yi moom daara ju taxaw ñoo fa ne ku gestu rek boo jaaxle ci ñoom nga jëm pour daara ji mën a baax yal na leen yàlla itam may leen gudd fan gu ànd ak wér ba njaboot gi ñuy saytu taral leen macha allah ak ah, jërë ngeen jëf gis nga ni mu méttee te moom moo fi représenté Macky Sall am déet ah loolu kon moom war na koo yëg bu ko yëgee mu def ci ay pexe ah yaakaar na nak bu ci defee pexe keneen def ci pexe keneen def ci pexe pexe bu yàggee mu sotti loolu daal la bëggoon nga jotal lañu ko soo soo yàlla defee nga yegg ak jàmm ah ñun nag dinañ def délégation aussi man ak ñun ak chef de village ak notable yi dem ci moom xam ko nag ñun nag ci ci fii bokk réew mi ci lañu bokk nootoo lañu bokk te dañoo war a yëg suñu bopp ci réew mi kaw ci kéwul nootoo Diobass te loolu mooy suñu problème majeur actuellement désenclavement daal soxla nañ ko lool lool lool donc euh, ñu ngi lay remercier bu baax a baax di dox kàddu bi nag monsieur euh, comment Samb c'est ça Mamadou Samb euh, sëñ Omar moom nee na moom du wax nee na moom bëggul wax doyen Samb te moom c'est un enseignant yi moom waroon naa au moins ah kon waa bisimilah wax parce que bu ma ñëwee fii ci Kër yi Mbaye Fall moo fi njëkk a indi te xaw ma ko woon sax sama xarit laa nekkaloon R100 di fa liggéey mbay Fall xam ko ñëw benn jour di ko seet waaw loolu mooy wane au départ rek que Mbaye Fall nit ko am kóllëre la daf ko xamoon rek saa bu jógee ñëwee Thiès te jaar fa ba mu naa ko waa Thiès sa waa ji moom bëgg na la de mu ne waa sama waay lan dañu yàgg noonu la def ba finalement mu ni ma foog ñu dem seeti mbay Fall di ma ko wax di ma ko wax benn jour ma ne ko nañ dem tey seeti mbay Fall mais bu ma ñëwee lépp lu ma waxoon ci Mbaye rek gis naa lu ko raw waa mbay dafa woyof dafa baax bëggal nit lu baax euh, jaral na ko ñàkk pour nit ñi am waaw moom ak soxnaam ak ñëpp euh, te d'ailleurs bi ma fi ñëwee noonu la ma dugalee introduire ma ñëpp ba ñëpp laa xam ñoom Pabacar ak imaam ak euh, sëñ Jaw ak ñëpp ku fi santi Njaay wala Saar wala Seck wala Touré ñëpp rek xam naa leen waaw lépp Mbay Faal mi moo tax moo tax euh, bi ma ñëwee benn jour tombé rek ñuy defar seen daar bi fii mu ne ma daar la ñuy defar ah ma ne ko kii de moom dañu ci barkeelu waaw parce que li ko waral mooy euh, man ak sama soxna dañ doon wax toujours naan ñu di xam ne bés bu ñu amee xaalis dañuy tabax jumaa wala tabax école wala xamuñoon daal lu ñu bëgg mais loolu lañ leen xalaat léegi bi mu ñëwee ba gis lu mel nii mu mel ni daal euh, kër Mori daal lañu yàlla indi. waaw moo tax man bu ñu dee wax naan dañoo baax wala dañoo dañuy dimbale ni ñi man yéen a ma dimbale waaw yéen yéen a opportunité pour ma daf li ñuy wax euh, boo demee surtout bayi na ñu ne radiyallahu anhu wa radu anhu lu mu ci teg zalika liman xashiya rabba waaw mu ngoo ñun nag foofu la ñu nekk gërëmante waaw nga kontaan ci yàlla yàlla kontaan ci yow ñooñu mooy ñaan mooy ñi nga xam dañoo ragal yàlla ragal yàlla nag du ragal yàlla yóbbu la safara wala yooyu mooy ngay def lépp action booy daf rek nga xool ci yàlla waaw ñun nag euh, moment boobu la ñu toll moo tax bi ñu gisee daara ji dañ ko këf rek daw gëstu ñu ba tey te comment dañoo commencé dong nag waaw parce que loo def rek du doy waaw loo def du doy bëgg nañu suba bu ñu tegee balance bi balance bu baax bi wàcc ba ca suuf waaw moo tax dañuy daw rek di dem yàlla na ko yàlla def mu yomb euh, ñun ñëpp ñu fekk ko taal ko mais li may mujjee rek mooy euh, gërëm euh, ndeyu daar yi waaw parce que ñu bëre xam naa xàmme nañ man mais xam naa ci ñu bëre xam nga jigéen moom mooy doxal société bu ñu bu bu société bu doxul wala ñoom topptooñ ko rek du dox donc buy dox ba léegi ñoom ñoo ci jàpp bi ñu fi naan dañuy jéem a continuer daara bi tamit parce que da yéen la fekk ngeen commencé ko waaw ñun dañoo continuer rek léegi euh, maçon yi ñu ne ñoom du ñu laaj un franc duñ ko laaj seen doole la ñuy def dañuy liggéey tous les jours mais samedi dimanche la ñu am jot rek ñu daal di ñëw kon nit def waaw donc euh, ñooñu ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax ku nekk coono bi ñu ci def xaalis bi ñu ci dugal sama frère sama sœur yi sama xarit yi sama goro yi ñëpp ku ma ko wax rek dóor nga ci sa xaalis ñooñu nañu xam ne seen compte boobu ma ngay mel ni lu may kenn kenn mësu la gis yàlla moom boo investir ci moom yàlla rek moo jar a investir waaw moo jar a investir de waaw donc euh, ñu ngi leen di gërëm den sant bu baax euh, ku ma fàtte rek xamal ni sama xel moo jigéen waaye ñëpp laay gërëm fi mu ne nii yéen ñëpp seen tur ak seen sant euh, di santaat yàlla bu baax a baax a baax mu gën ñu teg ci yoon bi gën a woy fa lépp yombal lépp ñi fi toog ñëpp soxla bu ñam yàlla na ko yàlla faj yàlla na yàlla may gudd fan wéral cër yi ba pare barke xale yi parce que xale yi mooy suñu yaakaaru suba. donc yàlla nu yàlla dafa jàmm ñun ñëpp ñu fekk ko tam incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu barakallahu lana wa lakum fil qur'ani al azim wa nafana wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim rabbana taqabbal minna innaka samiul alim kàddu gi de mënoon ñàkk parce que boo jëkkee judd ci kër am ñu la topp parce que duud mi toppul ci man mm-hmm. waaye kàddoom rek yóbbaale war na ma waaye nag comme Diouf dafa bëgg magam ni enseignant la ma doon déglu parce que nek ci environnement déglu dafa am solo mom deux personnalités fortes yo xamni wax lañ fi lu yémé yémé sen discours dafa amatan je commence par le plus jeune Euh, Madame euh, l'envoyé du préfet, l'étudiant qui a parlé tout à l'heure. Cher, je te donne 19 sur 20. <laughs> tu as été à bonne école, hein parce qu'en réalité moi ce que je devais dire c'est ma waroon wax moom parce que madame Fall madame Diop madame Fall. madame Fall moi j'avais comme euh, pas doléance hein, juste euh, rappeler que daara la dudu ak nom. Mhm. soxnaam rabi je ndaw moom mooy Doudou. Mhm. est-ce que dégg ngeen li ma wax ah suñuy soxna yi ñooy suñu borom kër dañ koy weddi mën naa ko argumenter fii ba suba léegi dañuy wax leadership féminin mais rab bi moo encouragé Doudou poussé ko boosté ko ba Doudou ñëw fii daf fi li na garder duudu ci wetam so loolu lañ ko sant ñu nekk mais rab bi moo nekkoon vraiment ku jiitoon ci liggéey bi ñu àndandoo ko nag Doudou si dégg loolu Mais il bañ a def mais dafa am ay mesures d'accompagnement madame mm-hmm. euh, pour venir à Kermoury, tu passes par des sentiers sinueux et des sentiers dangereux je pense à son Khadifal, je crois hein. mm-hmm. Son Khadifal est tombée d'une charrette hein. mm-hmm. on a besoin d'elle c'est une femme de développement mais ba légui mi ngi elle est ah tali bu ñu draguel avec ah? ci accessibilité parce que partir de la route di nga tranquillement ñu voiture de liaison peut-être bon ñu ngi ñu mhm. à défaut d'une ambulance une euh, voiture de liaison parce que une fois que euh, tracé bi alors Euh, dafa am euh, léegi ma dégg Cheikh Ousseynou wax ni mbooloo mi waroon na bari waroon na teew li kulli shay'in ajal te qualité moo gën quantité qualité moo gën quantité li fi teew tey bu ñu demee di ñaanal yàlla sax dañu mel ni ku ñu goree di mat na completement waaw donc euh, vraiment li ma fi dégg dal na xel te dañu yaakaar ni dina nekk dañuy wax naan bërigo ci mbartal bërigo diwlin ci mbartal teg loxo kepp boo tegee loxo mu dem boo togul loxo mu dem boo taxawee ci kanam mu dër la continuer boo am kon nag soxna si ñu ngi leen di dagaan parce que yenn autorité yi ngeen àggeel ñu ko préfet ni ko daal loolu mooy la petite doléance parce que en réalité je vais être le maître d'œuvre de du nouveau travail qui va se faire au niveau du poste de santé nous avons fait plusieurs fois waxtan nañ gis nañ ni que poste de santé nous fi nek mais case de santé tout le village ñom wax lool bobu dudoo ngi woon États-Unis ma ko yow continuer ci dara bi parce que santé ak éducation bu amé rek développement am regarde ces jeunes visages là d'enfants c'est des visages d'anges et fi borom xam-xam yi de xam gis nañ fi sax le futur président de la république mais président bo xam la politique de vérité lay def alxaqu saabitun ah noonu waaw xale yii buñ nañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que alxuraan mooy jiitu ci ñoom puis yàlla bu xasee ba dugg ci yow bu yeboo a dem sax États-Unis nekk ay Canada fu nekk nekk ci sa yu sew sewaan yooyu xale yi nekk yàlla dalay bàyyi ba nga dellu Sénégal mu yëngal puis ñu naan pourtant moom de ay bandi la woon moom de lii moom de la yàlla nañu yàlla defal lool xale yi na gën a góorgóorlu parce que lii di dàq am na ñu koy wax di ko fecc yéen du ngeen ko fecc waaye da ngeen ko gëm ah jërëjëf fi amaani laa on a préféré habiter dans le village on pouvait habiter ailleurs mais on l'a pas fait fi lañu bëggoon lañ fi lañ tàmmu dëkk pour combattre xeex lépp loo xamante ni par exemple lu baax la ñu indi ko ci dëkk bi roy suñu Baye Mor Diaw parce que Baye Mor Diaw

di nuyu suma collègue bële mbas Bass Samb nga xam ne ñoo yaroon doo seeb du Diaw maa koy xool ba léegi waaye booba maa ngi naan moom laak du moom fa yàlla def tey bi ñu ko gisee àpp na fanweeri ñu ngi tey gisante tey ngir yéen ak mbokk gi dox seen diggante ak yéen ba ñu gisante tey loolu am solo kon daje bii am na solo ci man bokk ndax ku ma gëj gis ma gis ko tey te yorandoo jàngandoo kon loolu contentement ak yokkut la ci man maa ngi leen di sant yéen ñëpp seen tur seen sant xam naa kàddu yi sax du bari kàddu santante rek ñun ñi yaay xale yi sant nañ Dudu bu baax sant Mbay Faal sant gi nag ñu ngi koy jëkkee sax ci Mbay Faal mi mu nga mi nga xam ne moo ñu indil Dudu fii ci dëkk bi Dudu defal ñu ci ci dëkk bi fop sunu xale yi dugal leen ci fop ostaas tekki mu di leen jàngal alxuraan ñun amuñu payam ñu ngi koy bàyyi yàlla yàlla nañu ko yàlla fayal foo nga bëgg a yegg yàlla na yàlla yeggal sax àndam mbay faalit na ko yàlla yeggale fa ngeen bëgg mu yegg fa yàlla na ko fa yàlla yegg jigéen ñi toog ñëpp kontaan nañ ci yéen seen xol seet na guy di ñaan yàlla nag li ngeen di mébéraat ci dëkk bii muy aw yoon ak case de santé bii yàlla na leen ci yàlla jàppale ba ngeen indil nu ko ndax man toujours ci yoonu kees bi waaye damay gis ni sa si daj ci yoon bi su ma nekk oto ñu ne maire Diop foofu mënu faa dem ndax seen dëkk bu kenn mënu faa dem ndax oto oto bu fa dem yàqu waaye nag xëy na daa jotagul bis bu ko yàlla jotalee mu yomb ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanal yàlla seen taxawaay yal na ko yàlla dolli ustaas mi di jàngal sunu doom yi nag ñoo koy ñaanal bu baax ñoo ngi koy ñaanal bàyyi ko yàlla yàlla na ko yàlla yeggal yi mu yëkkatiku ca kaw ndax sunu xale yi li muy def ci ñoom. ku taxaw conférence tari man mu fa nee da ngay jooy ndax kontaan te dënnu xale ku ca def loolu ba mu taxaw di ko tari ñun ñii di seen i ndey mënuñu ko kooku jara sant la sant nañ ko ba fa kanamu yàlla te liñ ko war a fay fayinu ko ndax man damay génn ci daara yi dégg ñuy fay ay 2000 ay 3000 moom deful nu lu may mil francs jàngal sunu xale yi ba nu wàcc alxuraan fu nu taxaw man faa tari kon nag ñoo ngi koy ñaanal bu baax yal na ko yàlla jàppale. aar ko yiir ko sàmmal na sunu xale yi ba fu nu bëgg a yeggu nu yeggu wasalaam loolu rek la amoon wa sallallahu wa sallama ala markazil fuhumi wal maani سيدنا مولانا نور عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما شاملا عميما بوكي نيو ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen di balu xaq ñu ngi leen koy baal di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nu boole jëggal képp koo xam ñoo ngi jotaay bi aajo boo fi mën a indi yàlla ko yàlla faj moo xam feebar la moo xam aajo adduna la moo xam lu mu maa doon rek yàlla mën na ko seen na ko yàlla ko def di ko rafetlu bu baax nag ndax ñun daanaka jotaay yii dañu am suñu dund yëpp ci li lañ ko jeexale ñu ngi ñaan yàlla yàlla mu leen privilégié euh, ñu ngi sant waa Kër Mouy Fall ndax lii ab royuwaay la décision bi ngeen jël ba tabax seen jumaa ji benn ONC wala benn ndimbal bu jóge feneen ñëwul ba mu àgg noonu ngeen def ba tabax seen daara bi lii ndam la euh, nit nag wala jullit yi dafa am fu ñuy juume tuuti te mooy ngër ngër yi ñuy def ci jàkkalee jumaa yi ngër ngër ko ci daara ji ba mu taxaw moo gën a nekk farat ndax jumaa bu taxawee ni yëngu te ka fa nekk xel ma ñorul ci islam du am solo kon bala ñoo góor góorloo di tabax daa daa jàkk nañ ko wax daara ba pare ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laata moo julli jibril ñëwoon na ko fekk fa mu daan di ko jaamu yàlla doon te indeeguñu charia boo xam ne sax ci lay sukkandiku waaye ndegam nitu yàlla la moom yaramam yàlla la xelam yàlla la léppam yàlla la moo tax da daan rek di wéetal bët ba ni ko jibril ñëwee ni ko iqra bismi rabbik mu jàng jàng jàng jàng tara nag mu doog koo jox riñaan moomu dem asamaan julli julli doog koo commencé pratiquer kon bala ñoo jaamu yàlla dañuy jàng ba pare fa tabarakallahu lii lu am solo la ñu ñaanal imam Moustapha di waa dëkk bi yëpp xel mu rafet ñii ñu am mu jëm ci yàlla yal yàlla saxal yal gën a jëm kanam xale yal na yàlla barkeel seen xel ba lu ñu jàng yal nañ ko man ndax xale soo ko jàngalee ba mu man doonte dalaa rawit yow dangay kontaan ci moom ndax dara gënu la màgg gën a dara gënu la ñu ni borom xam-xam bii day diw moo ko jàngal loolu ko mu doyoon ndam dootoo am ndam kon la ñuy tiitaroo ku jàngal kii ñuy diw ndam la loolu dama moo ci bàyyi nag waaye da leneen te ñuy góorgóorlu di encouragé xale yi ni ko euh, monsieur Baara waxe léegi waajur yi ñu am part bu rëy ci ci jàng bi dama koy wax suñu xale yi ndax xale boo xam ne école ba école lay bu ñubbee jeex na kooku bu xam-xam ba du gaaw yéen yi ñu may jël a des di tel di seen téere yi moo xam njàng moo mën a jàng na nasaraan wala alxuraan wala lu moo doon waaye ñëw teg say téere ba école ñu nga demaat ñëwaat kër taxawaalu boobu xam-xam bi du gaaw kon am ngeen ci part bu rëy di jàppale jàngalekat yi euh, daanaka kon xam naa ñu gàttal rek ndax jombul am nañu bëgg jël parole ñu waxaat leen rek wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. muul bokk yi a defar fii muñ bokk moom sol lu weex gerte ak yow noonu ñu ko wax Samb moom sa ginnaaw wala ginnaaw Momadou yaa dogal ba mu demee mbay wax ko loolu. fekk defaa am fii tool moo lutuk ànd ak jox diin cent mille jox ko may di ko màgg barkeel ci daara ñu ñag-ñagi tuuti suñu néew doole waaye yàlla dogal moom ci cofeelam mu woo Mbay Fall ñu ko daa bëgg ngeen fotal ma daara li ci des lépp ngeen envoyé ma ko kenn njëkk a ñu ñëw un million cinq indi sama loxo bi lañ ko teg ñu bii nag ba fu mu yem rek moo ko defuñu si dara xanaa bu ñuy liggéey rek ñu ànd ak ñoom waaye lenn ku ci làmbari sa def ci amul waaw ma seet ñu seedeel lool na nga xam ne mbokk yi sàmm mii ak ñi mun àndal ñoo liggéey daal ba mel nii ngeen ñaan leen yàlla yàlla fay ñaakaar ni comme li daf ko war a leeral waaw ji moom ñoo ko defal suñu doole waaye daara ji ñoo ko commencé waaye sàmm moo ko àggale ba mel nii mel lu ci war a nekk nag nee na ci fi mu ne courant rek moo des installé lañ ba pare wàcc si li moo des ndox léppam ci biir lu ci war rek mu ngi si kon nag ngeen ñaanal ko yàlla moom itam te itam ñu ñaanal leen yàlla itam lu mel nii Moustapha am ngeen am ko itam seen i daara yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ah <coughs> bi ci des rek dafa am lu ñu waroon a jëkke bi ñu sante maçon yi ba pare te ñu fàtte woon ko muy Mor Mor Seck mi toog ñëpp xam nañ ni Mor daara ji liggéey bi fu mu egg Mor mi ngi ci biir hmm. su xëyee Moustapha laaj ko ñu xëyee mu war a ñëw lu ñuy ndékkee seen attaaya day takk ndigam comme Baye Fall ba ba ñu wàcc mu dem waaw kon nag kooku su ñëwee teew war nañu koo sant bu baax xamal ko ni ko gis nañ sa taxawaay ci liggéey daal di kon Mor yàlla yàlla fay la yàlla yàlla fay la wax dëgg yàlla ku ci sonn la ki tafa bi xam na ko waaw ñun ñëpp waa dëkk bi xam nañ ko ñu xëyee ne dañu dem daara ji suba li ñu war a maçon seen ndékkeeg seen lépp ci loo xam ko te mooy dem këram mook soxnaam

kon nag kii jar na ni jërëjëf moo war sama xel moo ngi waaye kon bala maa fi lii naa ko waxoon bala ma delloo micro waaye nag xel day fattu waaye ba bàyyi xel ni wax dëgg yàlla bàyyi nañ la xel bu baax yal na yàlla fayal sa taxawaay comme ni ñaan yàlla masoo yëpp ñu ngi la ñaanal yàlla noonu yal na yàlla doon la jàppale bu baax imaam loolu laa ci laa ci doon doole rek asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu sañoon di ñëw sax dañ koy remercier mm-hmm. sëñ Ousmane waxoon encore ni mm-hmm. fii ngeen nekk sama ëtt bi ku ma neexul doo mooy papa si Modou Kala du ko ñëw rek am lu nekk si yow kon mu ngeen demee sow ngeen góorgóorlu ci ñaari rëdd ñu ne tekk mu ni moo fi defoon lii moo fi waxoon lii ndax lépp ci nekk lay mujj borom xam-xam la woon wala rek den ngeen mu rafet ndax boo xasee ba rafet lépp rafet ci loolu dañ daan jox ay leçon na li muy def moo daal parce que day toll jamono boo xam ne nag wax dëgg yàlla nag teraay ba dina fa tëddi ah. waaw da nga dégg suñu naan. Euh, bu njëgee loxo fa njëgee sa loxo. jigéen ñi xëy na ñoo demoon ci fu ñuy denc. suuf nga njëgee billaay doo ko njëgee naa ah? kon nag wetaay boobu yal naa bàyyi xel. la la fay fekk du dara lu ñaan. Mm-hmm. loolu kon yaa defal sa bopp. Hmm. arab yi itam danañ ñaanal fekkeeg tal ñun tam ñu fekkeeg tal rek. Hmm. loolu la ñu doon daal su ma waaj moom bu may wax ci moom comme ni ñu ko jàngalee école il faut nga amay citation. kébe ko ci bu baax. loolu taxoon ma bëgg mu bëgg ci man daal ndax dañu wax naan bu sëñ Fane bëggee tey buur bi yàlla bëgg na tey voilà jërëjëf. ñuy dañu ànd ci ay mbooloo yu bari. lu ci dëkk ñu bokk. suñu fédération daayira Maodo si nekk Thiès mu yor fa daayira ma yor daayira beneen bi tam ñu bokk ci beneen kuréel bu mag ñu koy wax réseau dooleel jigéen Thiès ma jiite ko moom mii mu jiite mutuel d'épargne et de crédit bi mu nekk mm. PCA bi muy ku am Pastef ku am ku am taxawaay fan yi yëpp bés bu ne mu pour lii ndax di nga teel a ñëw ndax foo toll ay da nangam nangam muy ku am Pastef ci mbir mi ànd ak ay càmmiñam nga wax dëgg yàlla te itam boo boolewul dara ak ki wax macha allah yal na ko yàlla defal jàmm aminta maa ngi jéggalu di au passage itam may yóbbante nuyoo Adja Khalifa di sama kóllëre moom tam borom këram nekkoon sama kóllëre xëy na a tax mu teew fi tey waaye yal ko yàlla may wér yal na yàlla may wér ba delloowaat ko ci ay activité maa ngi gërëm ñëpp di leen sant kontaan naa loolu nag ci jotaay bi wax dëgg yàlla comme ni ko sama càmmiñ ji waxee rek mbooloo mu am mu bari amul solo mais mbooloo mu am qualité mu am solo te ñu fi teew ñëpp di chef de village yi ñëw wàll si ak notable yi jóge ci yeneen dëkk yi wàll si ñëpp man mi xam waa gox bi xam naa ne mbo mbooloo mi mbooloo mu am qualité la waaw bari waay gi amul solo mais ñi fi teew moo am solo maa ngi leen di gërëm encore une fois leen sant ñu tëjëwaat ko noonu rek incha allah yàlla yàlla mootali yëpp ci barke Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bismillah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 قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يرد ولم يكن له كفوا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف ومن شر النفاثات في الوقت ومن شر حاسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس القناذ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقادم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره حق قدره حق قدره ومقداره العظيم